bëggul jox kenn rek wàccal woote. subhaana lazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa. li ngay wax dama koo xeeb lool samay wax dara. jërëjëf Ousmane maam Seck seen laaj maay mel. te Serigne ba Serigne Touba. bàyyi ba seen baara maa ngi dem ak Cheikh Mbacke. góor ga nga xam ne moo taawoo Moussa Ba càddoo ko te daa góor ci neex. xanaa xamoo Rasulullah yàlla tera xanaa xamoo Rasulullah sa maam Allah Serigne Touba nee na sa maam ba mu ne bëri gars yi ñoom bëri jiwu ci ngëneel gars yi dañoo daw jiwu ci ngëneel Serigne Touba nee na kenn si la. raamoo alwa nee na fàlli musrikin moom moo yor satala yonent bi kii ne maay maay bindal yeneen ci bi Serigne Touba nee na maay mindaanu yeneen ci bi maa koy jox satalaam buy jàpp maa koy jox kurusam buy werd maa koy jox ah, sijaadaam buy julli ah Cheikh naa Seex bi ne man maay sëtam ba samaam ba Ibou Seyni laay borom aji boo daayal laay wa aminu bi yaxfiru lakum min zunubakum wa istaghfiru ilayka واجبوا داعي الله وآمنوا xasida boobu Cerno Ahmadu Tijaan ba bu Bambilor moo ko way way ci magi réew mi yëpp naan Dakar ah diyaar yoo fii haadimaamun mooy leeral Sénégal muniiru mustadaaun mustanaaru ana soppeel maami Ibu Seydi lay def leen nii góor gi a teel yor satalaam taxaw gaa yëpp mu gis gaa yi di daw di ñëw Serigne Touba dungu loo buntu néeg bi xam na ki ne ci biir mu ne tekki taxaw gaa yi ne eh, dañuy wut Serigne Touba ne lu ngeen Serigne Touba ye eh, maam bàyyi Massa Baara ne lu ngeen dugg bàyyi Serigne Saaru ne ko lu ngeen dugg ñu ne ko wan fàttu Serigne Touba ne lam Serigne Touba ne bala lam yàpp oye lam yàpp mësta am entente bi dafa lam yàpp mësta ñëw lam yàpp mësta nekk Serigne Touba lu mu wax Ibrahima lam yàpp lam yàpp mësta am mislul Mustafa Muhammadu Rasulullah wala zina ma washida wala kuba